way waalo way waalo way waalo ngeen faatim yaman woon waalo doon na doom waaw waaw ginnaaw ba rek la woon jaala waali fay na ndeer ba ndam la del la fatim ak yëmbat fatim xuriyaay ak fati amar xuriyaay te yàlla fatim xuriyaay moom la nu jox sa faal bee joba moom ca siidi yende te yàlla fatim xuriyaay xuriyaay gireja gàkku njaak maamay sa naalaw bara ba almaami demee ndeer gannaaw barak la woon jalawaali fay na ndeer ba ndam la dellusi ndeer ndata yàlla fatim xuriyaay lanu jox saakura mbaar ka faal bee coba xuriyaay yaayam anta joob ngira ja ngàkku njaag ngàkku pende yiri maamay sa naaleew njaag sakura mbaar ka faal raya ci leen fara nga mali xuri mi ci beqaar yaat ma dem baa ngi dee dimar nit fari ndu mbeek nit fanta yaat ma nit mi somme woon ak buur yi keroog jobaas yal maami demee ndeer ginnaaw ba rek la woon jaala waali fay na ndeer bandam la Thank you. détestable ministre de la guerre de notre royaume, la sécurité du Wallo est entre tes mains. Aussi longtemps que le Trarza s'agitera et que le Fouta, toujours vibrant de prières, accentuera ses prétentions territoriales et même ses croisades contre les peuples libres. La mission première sera dotée à ses voisins belliqueux toute velléité agressive et le Wallo doit rester fort pour ne pas être conquis. Braque, nous devons rester vigilants, renouveler nos armements. former une armée populaire et ensuite mener à travers tous les foyers du Waalo une campagne de sensibilisation pour que les foyers du Waalo comprennent que la campagne historique est une menace sérieuse qui pèse sur les intérêts vitaux. Mais Braque, aussi longtemps que je vivrai, Je sacrifierai toute mon énergie à la découverte de notre royaume. J'ai cher tout le foyer de Wallo. Braque, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, le Wallo sera toujours debout. taxaw jonn du proche siggi Yérim, dans tes bras tu portes l'espoir de toute une génération, dans ton cœur la flamme de la liberté, dans ton regard l'avenir de Wallo dominateur comme le soleil total du couchant. Avec toi les entrailles de notre terre fétiche donneront vie au nouvel enfant du Wallo. Relève-toi, Yérim. Oublies-tu ce que ta mère t'a dit un jour Oublies-tu que tu es en Tejek, que tu es en Tequerel. Ton nom est synonyme de bravoure et de noblesse. Tu ne dois jamais t'agenouiller. Va, Yérim, va, va, va combattre pour le peuple du Wallo. tëjëgal fils de l'éléphant A-t-il N'a-t-il pas respecté ses engagements Son devoir de roi Comment pourrait-il le faire avec votre manie de l'exhorter aux conquêtes stériles De faire naître en lui cet esprit permanent de révolte et de belligérance Linguère, oubliez-vous un peu une mission exaltante et glorieuse celle de propager à travers les arts le rôle impérissable de la dynastie des Teck-Djeck. Yérim doit vaincre au prix d'innombrables sacrifices. L'intérêt du Waalo doit passer avant tout. Mais je suis sa femme, Linguère. J'ai des droits sur Yérim qui, malgré sa mission, n'est qu'un simple mortel. Avec ses joies et ses peines, avec sa volonté de vivre, oui, il mère, de vivre heureux. Linguère Yérim est un être supérieur les dieux l'ont choisi pour purifier la terre des aïeux et porter au-delà des frontières du Walo le message rouge des flamboyants celui de la dignité et de la liberté ça ne serait pas au détriment de mon amour Yérim a aussi des devoirs envers moi ton amour Ton amour est bien peu de choses devant l'exigence de la partie Linguère. Le Wallo ne retiendra que les hallucinations essentielles, celles qui portent un peuple en avant et rendent ses fils immortels. C'est ce que l'histoire retiendra. Les dieux sont formels, Linguère. Il importera les frontières du Wallo plus loin. Il agrandira le royaume laissé par son père. J'aime votre ministre de la guerre, le prince héritier des royaumes de mers océanes. J'aime ces pardons fredonnés dans l'extase de mon corps délivré. J'aime sa et qui monte dans la réside cosmétique de sa chevelure ébuffée. J'aime ses prestes colères dans le déchirement des désirs. Sa douceur grave dans la complicité des nuits palpitantes. habillé par les joyeuses sueurs. J'aime son verbe accéléré et viril, comme les lances oxydées de la cour royale de Tchagar. J'aime enfin son regard. Quel regard Ce regard de fauve qui parle au cœur. Ce regard qui enflamme. Je rêve que ses bras virils fassent de moi son éternelle prisonnière. et que je ne puisse plus me libérer de ces mains suspendues au miracle des longues nuits d'amour Linguère Linguère cessez de rêver yërmande c'est national une mission divine celle d'illuminer les aubes profondes dans le cœur du Walo sa mission est aussi de révéler la tragédie des Tata et des temps profanés la mission de Yirim est aussi de donner au Walo la suprématie des cœurs des les enfoncer dans la terre des aïeux. Il réussirait mieux sa mission si le Wall lui donnait le temps de me faire profiter de ses doigts de velours, de faire de moi une éternelle compagne dans les nuits de feu. Assez Vous m'énervez avec vos rêves d'amour, vos évocations juvéniles. Vous êtes l'ingénierie. Vous devez respecter la mission salvatrice de ce bras qui défiera le rythme des retrouvailles sous l'arbre tutélaire et les patients du langage. Linguère, ne soyez pas égoïste. Vous êtes une femme. Vous avez aussi besoin de compréhension humaine. Insolente! Oui, mais vous avez aussi besoin de caresses. La cour du Walo est une priorité, une exigence nationale. اتركني لا اتركني لا تفعل هذا لله ورسوله اتركني أنت يا ولد المختار خف خف اتركني لا لا لا لا تفعل هذا لله ورسوله يا عطيف ها يا عطيف بالنسبة لي الفصل لوالو persiste dans son attitude belliqueuse. Mm -hmm. Il continue à mobiliser ses troupes. il faut faire quelque chose pour l'arrêter. Sinon, sinon, sinon, Dieu ne l'empêchera pas d'éteindre son influence sur le reste du Sénégal. Le Walo une puissante capacité de mobilisation. Nous devons être prêts à faire face. Oh, Cette mobilisation, c'est l'œuvre de Yirik Mani. Il ne vise qu'à le Trarza et ainsi la pénétration de l'islam dans son pays. Mm-hmm. Un jour, Inch'Allah, Inch'Allah. j'aurai le plaisir de le voir traîner à mes pieds, couvert de sang, de la cheville. Je le torturerai avant de jeter son corps en pâtir aux chacals et aux charognards. Il n'aura même pas L'honneur de mourir de Mémé, cet esclave ambitieux qui rêve de conquérir la Trarza. Your Altesse, c'est vrai, ce Kafiri est une menace pour la Trarza. Mais il ne faut jamais négliger sa popularité, l'amour que son peuple lui porte. Wallahi, l'homme est courageux et rusé, wallahi. J'écraserai un jour cette verminée de la poussière des tags et des Notre prétention à dominer le Wali est légitime. Nul ne l'empêchera de se concrétiser. Wallahi. Ya Altesse. Prenez garde à Yérim Mbagnek. Il est très fort et rusé. Il croit ses totems aux forces occultes. Il est surtout convaincu de la puissance et de l'avenir du Wallo. Ya Old Mortar.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 هو لا يقع شيء et il n'a peur de rien. Your Altesse, il faut voir qu'on s'incline à son passage toute la jeunesse de Guadeloupe. Hmm, c'est le nouveau visage de Guadeloupe. Et les forces mortes ne se battront pas sous la même bannière. El Khaouri a ouvert les voies de la dissidence. Cette défection amoindrit sensiblement nos forces. Wallahi, ya Ould Mokhtar. El Khaouri est un Il n'a aucun droit sur le Trarza. Il sera anéanti par mes troupes, unique représentante de la cause morte dans cette région. Mm-hmm. Qui a conquis par le fusil doit commander par le fusil. Mm-hmm. La légitimité n'est plus du côté de El Kaouli, mm-hmm. allié du Walapé. Mais nous pouvons compter sur les tout couleurs. Mm-hmm. qui porte notre foi à Allah, le Tout-Puissant. Allah. Cette alliance avec les Toucouleurs ne peut être que Ils combattent aujourd'hui les Wallons. Mais ils ne seront jamais nos alliés définitifs. S'ils triomphent du Wallon, leur ambition sera déplacer plus encore les frontières du Alors, l'affrontement sera inévitable. mais taisons nos divergences par souci stratégique. En Perse. Hum. Nous avons Pelgré avec nous. Il ne pas le Waalo dans son cœur. Et il déteste ce fou de Irimani. Dans Altesse, nous avons un ennemi commun. Oh mais c'est un Toubab. Les Toubabs sont tous pareils, plus instables que le sable de la mer. Nous irons L'histoire des femmes de Nder est restée longtemps dans la mémoire des Sénégalais. Un mardi du mois de novembre 1820, des femmes se sacrifièrent collectivement pour ne pas tomber entre les mains d'esclavagistes morts. Ce mardi, comme les autres jours, les hommes avaient rejoint les champs dès l'aube, la daba sur l'épaule. D'autres s'étaient rendus à la chasse, tandis qu'un troisième groupe prit la direction du fleuve où étaient amarrées leurs barques de pêcheurs. les femmes, vacant à leurs occupations, s'interpellaient à l'intérieur des concessions. D'autres s'affairaient aux alentours des greniers où étaient entreposées les dernières récoltes. Quelques-unes enfin bavardaient tranquillement sur la place du village. Soudain, un cri d'effroi troubla la quiétude des lieux. allons nous battre contre eux. Femme de Redressez-vous et renouez vos pagnes. Des ennemis sans pitié arrivent une seconde attaque. Devons-nous toujours reculer devant eux? où sont Nos hommes. nos hommes sont loin d'ici du kenn ku fi et si nous ne résistons pas ils feront de nous des esclaves est-ce là sort digne de nous déedéet du ñu nangu mukk ñu ñuy yeew du ñu def jàmm yéena ko wax de waaw te góor ca wax ja waaw waaw s'il faut mourir mourons en femmes libres et dignes

postés à quelques kilomètres de la rive du fleuve. Les cavaliers enturbanés venus du désert s'apprêtaient à lancer leurs chevaux à l'assaut du village d'Ender. Les femmes décidèrent aussitôt d'organiser la résistance. Ces femmes se battirent avec l'énergie du désespoir. Elles s'engagèrent, animées de leur seul courage, dans la terrible confrontation avec l'ennemi. Dans leur chant de célébration à la mémoire de ces femmes d'exception, les griots, illustrateurs des pages d'histoire africaine, assurent que ce jour-là, elles exterminèrent morts. la seconde attaque des morts Tarzan, les femmes du Waalo se sentirent perdues, à bout de force, et ne pouvaient soutenir cette seconde attaque. Les hommes avaient tous péri. Et le messager qui s'était précipité à la recherche de secours arriverait sûrement trop tard. Tout espoir était vain. Femmes de Nder, dignes filles du Waalo, redressez-vous et renouez vos C'est alors qu'une voix s'éleva au-dessus des clameurs, au-dessus des lamentations et des hurlements de douleur. C'était Marcadia, la confidente de la lingère Fatim Yamar. Elle seule savait se faire obéir des courtisanes énergiques et autoritaires qui entouraient la reine. Elle disait aux femmes de nerf de ne jamais reculer devant les envahisseurs. Jigéen waalo. Jigéen waalo. jigéenu wàllu yéen jom fit fula fayda rek laa leen xamee. waaw amul dellu ginnaaw. tey kenn du fi dañuy dem ba jeex buñ dee gaynde waalo ñun ñoo tax. Linguère Linguère Fatim Yamak li Linguère. Mbodj. Mbodj. Femme de Nder. Mbodj. Femme de Nder. Mbodj. l'histoire du Waalo repose désormais entre les lignes absolues de Mbodj. Mm-hmm. qui graveront les plus belles du peuple. Femme de Nder. Mbodj. et pour préserver immortaliser ce jour de vérité. Vive Linguère nous sommes Nous sommes prêts à défier les lames et les projectiles fumants. Nous sommes les légitimes héritières du peuple du Tac et du Djeri. Linguère, s'il faut mourir, mourons dignement. Mourons Linguère, mais mourons libres. où mes bras Soyez remerciés pour l'exaltant souvenir que vous laisserez à la jeunesse du et à celle du Sénégal. Votre beau sera la cendre éteinte que le vent matinal fixe désespérément dans les lignes de la rosée des vents. de Der. Le tison.

la situation est sans issue. Mais notre désespoir ne saurait profiter aux assaillants. Mukk Mbodj. Mes sœurs, il n'y a pas de plus belle mort que celle qui consiste à offrir sa vie pour la cause nationale. Eh. il y a plusieurs façons de mourir. Il faut choisir. Choisissons la plus dure et la plus honorable pour notre peuple. Dëgg la li nga wax. Alors J'ai choisi le feu comme arme de riposte, Le feu! Oui, le, le Seydani. Linguère. Seydani. Ne m'en veux pas pour le sacrifice que je vais te demander. mais j'y suis pour la grandeur du Waalo. Linguère, je vous en supplie, ne me laissez pas vivre après votre mort. Seydani, car les pépites de presse se mêleront aux lames de nos chairs. Tu iras te refuser derrière grand canal pour la tragédie de Nder ait et soit connue par les forces nationalistes du et par leurs historiens. Divers Seydani, comment sont mortes leur reine, leur Burkinais, leur Seydani, comment sont mortes les héroïnes les fantastiques je vous en supplie, permettez-moi de vous désobéir pour la première fois de ma vie. Ne m'humiliez pas ainsi, Linguère. Laissez-moi mourir à vos côtés. Je refuse pour la gloire du Wallo. Seydani Seydani, ta mission est aussi noble que la nôtre. le Wallou te rendra hommage. La grâce à toi. Ce jour de mardi sortira les tablettes du commun pour devenir le mardi de Nder. Le jour le plus glorieux et le plus célèbre de notre patrie. Les diseurs de louanges en leur hymne. Les adolescents leur serment régénérateur. Les femmes leur rêvent pour fertiliser l'illusion. Va, ma sœur, J'entends déjà les crépitements des projectiles. Et les galops des chevaux résonnent maintenant dans mes tempes. Va, ma sœur. Va. Fatim Yamar et Mbarkaya fermèrent la porte, et d'un geste précis, elles enflammèrent une torche, et sans même un tremblement, la lancèrent contre l'une des façades des branchages. Aussitôt jaillit un immense brasier. À l'intérieur de la case, les femmes enlacées, serrées les unes contre les autres, avec leur nouveau-né, elles entonnèrent comme pour se donner un dernier sursaut de courage des berceuses et des vieux refrains qui, depuis leur enfance, avaient rythmé leurs activités. Et plus tard, et les voix s'éteignirent peu à peu, tout à coup. Un effroyable craquement dominant, le crépitement des flammes, la charpente du venait de s'affaisser sur les corps. C'est un silence de mort. Toutes les femmes de l'air avaient péri, sauf et une voix en lambeaux. way waalo way waalo way waalo i ngeer fatim yamal woon waalo doon fatim yamar booj waalo dooj añ gàcce ku leen tooñ ñoom yaa ngi na <laughs> Quelle mission m'avez-vous confiée Quelle mission m'avez-vous confiée, Niger Racontez votre mort. que j'aurais aimé partager avec vous pour alimenter à jamais la conscience des futures générations. Vous voilà témoin de votre ultime sacrifice, que de votre mort héroïque jaillisse la voix purifiée des femmes du Wallo. Mais j'en suis sûre, les baraques fouleront les décombres des totems incendiés pour réchauffer ces cœurs épars. barbares et d'âmes seront galopés, les sacrifices débiles en de pardon à mon peuple agressé. J'attendrai ici au milieu des cadavres, des corps calcinés, l'arrivée de Yirim Mani qui ne saurait tarder. à l'appel de la terre profonde. Wallo! oui, faati amar xuri yaay te faatim xuri moom la nu jox sa kurambaar faal bee jooba moom ca siidi yende te yàlla faatim njaag la woon fay na ndeer ba ndam la dellusi ndeer ndata yàlla fatim xuriyaay la nu jox saa mbaar ka faal bee coba xuriyaay yaayam anta joob ngira ja ngàkku njaag ngàkku pende yiri maamay sa naaleew njaag sakura mbaar ka faal raya nga ci fara nga góoram mali xuri mi ci yaat ma demba ngi dee dimar nit fari ndumbeek nit fanta yaat ma nit mi somme woon ak buur yi keroog jobaas biyal maami demee ndeer ginnaaw warag la woon jaala waali fay na ndeer bandam la sakura mbarka faal bee joba fiya nette yàlla fatim xuriyaay ee eh, waalo waalo xamul caaxaan na neer bandam li deel ay sa daaro yaay maram njaay ay sa daaro yaay kulimba ba maram njaay yayi samba ñebbe kuli chef supérieur la manto ma ko tenji kuli mbabba maram njaay ay sa daaro ay sa daaro mbokk baayam fatiyam al xuriyaay mbokk baayam aram bakar mbooj mi nu joxoon almaami abdul xaadir kan wala yàgg na ci njàmbaar barkalaw be mbooj njaay motal neeg ba keroog ndeer nu bàyyi fa saydaane ma faatim yóbbu ko gànnaar ma mboq di saydaane geet saydaane ak sayar saydaane saydaane ma faatima wa njaay alasaan jigéen teg ndey baaba jaw mu di samba caakam njool mi tere woon gaal yi dem ngalam bi almaami demee ndeer ginnaaw ba rek la woon jaala waali fay ndeer ba dam la dellu ndeer mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan ñu ngi am mbégte jàkkaarloog yéen si euh, seen télévision 2STV nekk euh, télé bu njëkk ci Sénégal euh, nekk télévision privée li ci nekk télévision boo xamante ne caada moom mooy ligne éditoriale ñu am mbegte euh, toog ak professeur Fatou Sow lu waral décor bi ak lu waral jootaay bi tey mooy talaatay ndeer bu ñu waxee talaatay ndeer nag daf ñuy delloo si si li nga xam ne moom mooy histoire u Sénégal wante bu ñu nee histoire u Sénégal dañu ci yokk li nga xamante ne moom mooy jigéeni ndeer li ñu def ci Sénégal li waral ñuy célébrer le 7 mars bu nekk mu xewoon nag le 7 mars 1820 du ñu ci sori dañuy nuyoo professeur Fatou Sow Sarr ne ko ñu ngi lay jaajëfal di la gërëm di la sant ni nga wër ak def ak recherche dugg biir Sénégal ba pare di xeex bés bu nekk ci at bu ne mën a taxawal li nga xam ne moom mooy 7 mars institutionnalisé que parce que mënuñu di fête 8 mars te duñu fête set mars ci Sénégal professeur ñu ngi lay gërëm di la sant di la félicité di la ne jëf ci taxawaay bi ak liggéey bi di la ne lu waral set mars ak talaatay ndeer ñu di ko célébrer. Euh, jërëjëf Nina euh, ñuy gërëm ñi ñuy seetaan yépp euh, di jaajëfal waa 2STV ndax ni ñuy jël option dugg ci culture. Euh, ma bari nag ñu ma war a gërëm tey euh, ñi nga xam ni ñoo laa toogal fii ci plateau bi muy professeur Boubacar Bari bu may gërëm moom laa war jëkk gërëm moom ak Alioune Badara Bey parce que ni naa bu ñu xamee histoire waalo yàlla ak moom la parce que moo jëkk bind histoire waalo léegi ñu traduire ko ci ñaata xaw ma ñaata langue dana ko wax bu ci accès ba espagnol sax Cuba def naa ñoo mujj traduire léegi waalo xam nañ ko fu nekk donte xamoon nañ ko Alioune Badara Bèye nag moom moo ñu defal Nder en flamme mooy talaatay Nder bi moom moo ko fësal ba euh, pièce boobu moom la ñuy euh, at bu nekk si la ñuy sukkandiku di fàttaliku la xewoon Nder fii nag ay historiens yu mag ñoo fi taxaw tey Rokhaya euh, moom ñëpp xam nañ ko ci li mu liggéey ci Kayoor Euh, li mu liggéey ci histoire du Sénégal en général parce que moom mi ngi nekk si histoire générale Sénégal bi si la bokk léegi ak ñi fi toog nii roqee moom dañu ñëwal moom tamit si euh, yeneen jigéen parce que bu ñu fi wax ndeer ndeer bi prétexte la rek pour dellu si ci taxawaayu jigéen ci Sénégal ci suñu biir histoire ak suñu cosaan ah mbay euh, Mbaye gi tamit moom tamit daf di koo xam ni non seulement dafay gëstume mais day produire. ci ndeer def na ci ay ay ay cassette def na ay CD internet bi mi ngi si moom tam daf ci bay waaram ah professeur Mbaye Thiam nag euh, moom tamit dañuy bégtu di rafetlu teewaayam tey ndax ñëpp xam nañu moom moo jiite woon EBAD ñëpp xam nañu xarañteem ci biir histoire euh, te ñu koy jaajëfal tamit ci chronique yi muy def fan yii yëpp pour di delloo si nit ñi ci li nga xam ne mooy valeur Sénégal. kon tey daañu fi wax ndeer mais daañu wax ñeneen euh, xëy na rox xëy na ñu dugal ci yaasin boobu xëy na man dinaa ñëw si Fanta Canal de Balde xëy na ñoom Babacar Mbaye nag daañu ñëw si ñeneen ak ñeneen ci ñëw ay ay ngone donc bari na ñoo xam ne tey war nañ leen fësal euh, talaatay Nder bi nag euh, si biir centenaire bi daaw la woon ñu waaj waaj ba ba mbat waaye yàlla def li muy def mbas mi ñëw ñun tamit ñu ñu toxal ko parce que ñun leen bu fekkoon Fatim Yamar yaay moo ko fekke woon da koy toxal ndax la ko jógoon taxoon a def ñoo ñooñu sauver seen patrie seen réew moo leen taxoon ñu def li ñuy def kon ñi nga xam ne ñoo leen doon tey dañu war mën taxaw taxawaay bi ñu taxawoon ñoom ma ciy gërëm nag Marième fay Sall parce que daf ñu jàppale woon pour que ñu mën a def manifestation bi mu supporté ci woon yenn certain nombre de d' activités euh, léegi tamit ma dem Ndiaye il faut que ñu jaajëfal ko parce que ñëpp xam nañu fay mi télévision dafa cher asantuma nag ñu jox la ci une heure et euh, njëgam amuñu ko kon bu ñu ko nangulee defal ñu ko moom ak El Hadj Ndiaye yëpp ñu leen di gërëm di leen sant ci ci loolu may sant tamit euh, sama étudiante ancienne étudiante sociologue Lalla mm-hmm. Lalla Diagne nga xam ni guerrière yi taxaw moom moo ko xalaat parce que artiste la styliste la am maison de couture bu tudd Chariza culture moom moo ko fi def am tamit suñu jarbaat Siga Ndour moom moo def décoru ndeer bi moom tam journaliste la ba pare di artiste donc moo fexe ba defal ñu delloo si waat ñu si biir village ndeer naka dëkku ndeer à l'époque nan la nan la meloon kon li tax ñun ñu koy ñu ñu xar si suñu tànk tubéy 2008 lañ ko commencé joué ko Daniel Sorano juróomi ministre bis boobu ñëwoon nañ fa ñu def mémorandum pour ñu yët ko président Ablaye Wade ndax ñu fexe ba 7 mars balay 8 mars di ñëw comme yàlla dafa def bisi yi dañu taf tantloo te ba pare tamit jiitoo na 8 mars li tax ñu koy feete fanweeri at ak juróom-ñaar ñu ni ñun am nañ suñu histoire bopp état bi daf ko war jël boole ko ci calendrier républicain bi bu ko defee le 7 bi nit ñi mën taxaw xalaat réfléchir ak le 8 ba nag ñu daal di wëlbatiku feete 8 bi ah mais boobu ba tey amul euh, def nañ aussi benn euh, lettre ouverte au président de la république mi ngi ci biir internet bi boobu ba tey amuñu ko loolu moo tax ñun ñun leen ñun ci suñu wàllu bopp 8 euh, mars moom bu ko Sénégal yi di liggéey ñun duñ bokkuñu ci daañ ko feete ak yeneen réew mais comme suñu réew moom nanguwul li mu moom mu fësal ko màggal ko ah ñuy continuer rek xëy na du ñàkk ëllëg dana am nopp yoo xam dana ci dégg ñu mun koo def kon loolu moo tax ñu ñu def loolu euh, ren tamit euh, bi ñuy ñëwee deuxième vague bi ñëw mais surtout mu am crise bu fi am ci Sénégal ñu xam ne jigéen ñi tamit dañu am wàll buñ ci war a am ñu ni leen tey talu ñu di wax ay affaire set 7 mars bala ñuy wax ñu wax lu taxaw lu stable Sénégal ba pare moo taxoon defuñu ko woon léegi nag la yàlla def mu antu moo tax tey ñu fas yéene ñëw séddoog ak sénégalais yi liñ ci xam mais surtout xool ban njàngit lañ ci am ndax pour xale yi ëllëg parce que loolu moo ci am am solo bi euh, wax ji du rek parce que colloque lañ façon yéene def 2020 naroon ci génn benn livre mais ba tey rek xëy na yàlla dina ko antul ñu defe ko neneen kon li ñu bëgg tey mooy juste junj ko euh, gis ban jàngat lañ ci mën a am ak jigéenu tey ak xale yi ñëw ëllëg naka lañ ci mën sukkandikoo pour mën a taxawal seen réew li seen maam yi taxawoon ñoom taxawoon nañ ko sa seen cër la seen jamono laajoon mais jamono bii ñëw ak jamono buy ñëw ëllëg xëy na am na leneen lu mu laaj waaye la ci nekkoon boobu Serigne Mbaye Thiam da nga ko wax ngor ga ci nekkoon jom jaak fulla ja la tax ñu defoon ko loolu ba tey daf fi war a des loolu mooy suñu kenu réew looloo taxoon euh, euh, euh, soxna si ñu wal ni naa ni naa fay yow xam nga yéen tamit sax waalo ngeen jóge <laughs> parce que jaar ngeen fa bàyyi ngeen fa seen xàmb yi bàyyi ngeen fa yu bari euh, tey boo demee fa ñuy wax euh, jaalawaali ba tey bu ñu gasee dañ fay génn dafa gis ay per kon euh, ñu ñu déggee ko noonu rek di gërëm tamit ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ñi ngi ci ànd ak ñun ñëw maa ngi seen frère Ndeye Guèye Cissé moom tamit sa génération ba maam yi jóge woon waalo ñëw kayoor la woon parce que buñ ko seetee finalement ñun dañuy wax Sénégal yëpp ñun la woon rek waalo lañu jóge dem Jolof waalo ba parce que ba Njaañaa Njaari dem Jolof dafa jël ci famille yooyu yóbbaale donc après ñeen ñu wëlbatiku waa dellu si kon kon mooy loolu rek maa ngi seen tamit Ndeye Arame ñaar di ko di ko gërëm di di seen aussi euh, Nafisatu Wade donc euh, euh, di ak sama xale yi nga xam ne tamit ñu ngi ñu ñoo ñu solul solu cosaan mm-hmm. ñoom ñëpp muy troupe yi ak Pape Faye liggéey bu rafet bi ñu fi def kon loolu moo doon solo si ma delloo la kàddu gi. dañuy bàyyi euh, suñu cantatrice traditionnaliste bi nga xamante ne euh, dafa am loo xam ne moom it daf ko am ci wàll euh, ñu war ko jox cëram waa régime yi ñu ñu mën a déglu ki nga xamante ne mooy Lissou Mbodj cantatrice histoire waalo ñu bàyyi ko mu daal di tàmbali bu yëkkatee ba daaneel ñuy xuus dugg ci waxtaan régie Kondama Kondama Walo Kondama Fati Amar Xuriyaay ñi bañ gàtte ñoo nangu dee Fati Amar Xuriyaay Xuriyaay Anta Joob ngir jam gàkku njaag gàkku pendiir ma may sa naaleew njaag xuryaa yoon te joob la nu jox ba fara pen la moom ca tegrel xuryaay ak fatim xuryaay ak njaa kumba xuryaay nu jox ko be ci neewaat ci neegub loggar maam jaaram mbakkar agay sa daaro ñooñu fara penn teggal lay seen baay waalo kod naama kondama kondama waalo kondama tegalal xuriyaay ak Faati Amar xuriyaay ak Njaay ak Kumba xuriyaay ja Kumba xuriyaay ay baayu awa taar ga njaak maami màggat Faati Binta Joob baayu ay batu mbay baayu du yaay duudu Faati Binta Joob duudu Faati Binta Joob mbokk ndey màggat Fatou Binta Diop ak Abba Fatou Binta Diop awa targa njaag Fatim Xuriyaay du doy baay kondaama kondaama waalo kondaama Fatou mi tax kenn dootul fàttali ngeer na te yàlla buur bu jigéen ba kuli paate boobu mbooj biraan mbakar ma samba maane borom jafle yi sa jafle bi ci dagana bokkul ak sa jafle bi ci mbiloor orjo mbooj samba ak saane mbooj samba waaw kondaama waalo kondaama alcaaka maanab jagob maay far alcaaka ak jama alcaaka alcaaka maanab jagob maay samaan borom cambal ñey la alcaaka ak maram caam caaka sa ñaari maam yee bokk ndey ak baay gërmandey seen yaay gërmandek mant mandek tagaaj mandek ñooñu buru mandek baay seen baay walo gondama fatim xuryaay ak fati amar xuryaay lay fatu yaa jomba ñaaw yaa def lu baax yaay fàttali foo tol sa maam ndete yàlla fatim xuriyaay moom jonu jox sakura mbarka faal bee cooba moom te ndete yàlla fatim xuriyaay xuriyaay gireja nga ku njaag maamay sa naalaw kumba korndaa maay korndaa maay waalooy korndaa ndete yàlla fatim nu jox sakura mbarka faal bee cooba mam te sit ndata yàlla mi demoon géej ba tey ñëwul njëmbat fatim xuryaay mu yóbbu ko gànnaar jox dal habib émir ba ca tarasa mam ci yàlli njëmbat mi boole tabale ci gànnaar ak junj ci ndeer tëggoo yàlli njëmbat ñëw ndar jël fa xayfaat njawar yaasin am ci kumba faal yelleeg ndati yelli ma faal yelli nu jox ko Cheikh Corob Mbàkke mam ja soxna Bintu Mbàkke mu yewet ma balaay sa buuri ndata yàlla Fatim Xuryaay nu jox ko Samba Yomb Gille chef supérieur ba mam ca sumboj yaayu ndey Yaasin Jeng am ca Sukayna yaayu Basiiru Njaay waalo kondaama kondaama kondaama dañuy jaajëfal Lisoun bu ñu jaajëfalee Lisoun ba pare ne moom mooy nekk tey fil conducteur bi euh, professeur Fatou Sarr wax na ko bi ñuy tàmbale ci waxtaan wi dañuy introduire professeur Boubacar Baye euh, mu may ñu nag ñu def li ñuy wax incursion en français parce que ñeneen ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan euh, ci yeneen réew yi ci Afrique bëgg nañu xam li waral tey ñu toogee nii ñu toogee ak sañse beeg solu beeg traditionnaliste yi li ñu war a def Pape Faye buñ de ak pièce de théâtre bi nga xamante ne moom mooy représenter euh, Nder en flamme talaatay Nder euh, vous dire bonjour et bienvenue encore une fois et merci de suivre les programmes de la 2STV rappeler le pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui autour de ce plateau avec ce décor magnifique qui représente la tradition sénégalaise. Mais au-delà de la tradition sénégalaise, nous sommes réunis pour parler de l'histoire de Nder. Et quand on parle de cette histoire de Nder, c'est l'histoire de femmes sénégalaises qui ont montré leur bravoure. Nous sommes entourés de professeurs, d'historiens qui vont partager avec nous cette histoire, nous dire de pourquoi aujourd'hui professeur Fatou Sow a choisi de célébrer le 7 mars. Et cette histoire date de 1820, un 7 mars où des femmes se sont levées pour défendre leur honneur, si on peut le dire ainsi. Nous avons le plaisir d'être avec le professeur Boubacar Barry. C'est toujours avec beaucoup de joie et beaucoup d'émotion que nous le recevons. Et avant de lui donner la parole, permettre au professeur Fatsoussar en français pouvoir résumer rapidement le pourquoi de notre rencontre aujourd'hui avant de lui dire au professeur pourquoi avoir choisi de vous intéresser à l'histoire du Walo, qui est aujourd'hui traduite en plusieurs langues et partagée un peu partout dans le monde. Professeur Fatsosa. Nina. Donc euh, le, mars, c'est euh, une date importante pour l'histoire de notre pays parce que Euh, des femmes qui défendaient le royaume à l'absence euh, de l'armée euh, qui avait été défaite dans une bataille précédente ont combattu contre les hommes, les, les, les, les ennemis. Euh, mais après avoir épuisé leurs munitions, elles ont décidé de se donner la mort plutôt que d'être des prisonnières de guerre, euh, parce que la prisonnière de guerre, comme aujourd'hui, les femmes étaient le champ de bataille aussi des ennemis. et pour ne pas souiller leur honneur, souiller le nom de leur patrie, l'honneur de leur patrie, elles ont choisi de se donner euh, la mort. Euh, ça a été conduit par euh, euh la reine. La reine, en réalité, euh, c'était des femmes qui ont... C'était une femme extraordinaire, Fatimia Markouriaï, euh, parce que c'est elle qui a mis son mari au poste de braque. Elle était en réalité vice-braque dans les fêtes, parce qu'elle a signé des traités avec le Trarza, Et donc, c'était une femme qui avait une capacité prospective extraordinaire. Avant de se donner la mort, elle a fait évacuer ses deux filles, Dateyala et Et ces deux finiront par gouverner le royaume jusqu'à la conquête par les Français. Et le 7 mars, pour nous, c'est une date euh, importante, pas seulement pour le Wallo, mais pour l'histoire de notre pays d'une façon générale. Et nous avons beaucoup à partager aussi avec le reste du monde. Et c'est pourquoi nous pensons que même si le 8 mars, qui est une coïncidence qui suit le 7 mars, est une fête internationale, nous Sénégalais aussi pouvons, sur euh, le plateau euh, de, comme disait Senghor, de donner et de recevoir, apporter aussi notre part et partager avec le reste. Donc, et nous voulons que cette date soit commémorée régulièrement pour que personne n'oublie, mais surtout pour former les jeunes générations au sens du de l'honneur, en tout cas de ces valeurs fondatrices de notre société que nous retrouvons dans tous les autres royaumes aussi. C'est pourquoi nous n'allons pas nous limiter à Ander, même si c'est le point de départ. Euh, je crois que les éminents historiens qui sont ici nous parleront aussi euh, des femmes dans les autres coins du Sénégal. Donc, et c'est pourquoi nous disons que le professeur Boubacar Bari, euh, que nous remercions, qui est citoyen d'honneur de la ville de Richard Toll et de la ville de euh, nous, nous, nous sommes redevables à jamais. Parce que c'est grâce à lui que cette histoire du Wallo a traversé toutes les frontières, les mers et les airs et a été traduite dans plusieurs langues. Il en parlera. Professeur. Ah, c'est une, euh, une, longue histoire. Et euh, parce que vous devez savoir que moi, je suis né à la source du fleuve Sénégal. au Fouta-Jalon, en République de Guinée. Et le hasard a fait que, pour mes études d'histoire, je suis venu à l'université de Dakar en en lorsque j'ai terminé ma licence, il me fallait un sujet de maîtrise. Et ne pouvant pas rentrer en Guinée pour prendre un sujet euh, sur la Guinée, euh, Madame Denise Bush, qui était mon professeur à l'époque,

et aux événements culturels et aussi mes, mes, mes anciens étudiants qui sont devenus des maîtres et qui sont à la retraite. <laughs> Euh, c'est trop tôt. Madame Rokhaya Fall, Mbaye Thiam et Monsieur Mbaye, mon homonyme, Babacar Mbaye. Et je pense que euh, le Wallo, c'est mon destin. Mm -hmm. C'est mon destin que je n'ai jamais plus quitté. parce que en plus du travail scientifique que j'ai fait au Wallo, à l'embouchure, je me suis, je me suis je, mon épouse Aïssa Tousso est de Saint-Louis. Donc je suis resté sur la trajectoire du fleuve depuis plus d'un demi-siècle. C'est pour cela que euh, et Mme Fatou Sossar a expliqué l'importance de l'histoire du Wallou. Mm -hmm. qui dépasse largement les limites de ce petit royaume amphibie, comme, comme on l'appelle, à l'embouchure du fleuve Sénégal. C'est le prototype de, de l'histoire d'un petit royaume qui a été en contact avec le reste du monde dès le 15e siècle. Et même avant, par le mouvement almoravide vers l'Espagne et par la suite avec euh, l'arrivée des Européens sur la côte à partir du 15e Et c'est un exemple d'une continuité historique de ces relations, ce qui explique que l'intérêt que le royaume du Wallo a suscité par la suite, une fois que cette histoire a pu être écrite, a suscité à travers le monde. Et la traduction qui a été faite en particulier de cet ouvrage au Brésil, en Amazonie, à Rio Branco, euh, est due au fait de la similitude des occupations européennes de l'Amazonie et du fleuve Sénégal. Des problèmes de terre, des problèmes de l'accaparement des terres, des forêts, et ainsi de suite, et qui s'opposent encore au royaume de Wallon. Donc c'est un royaume qui est actuel et qui a bénéficié aussi d'une réflexion théorique des grands maîtres comme Samir Amin, mm -hmm. qui a écrit la préface du royaume du Wallon, à partir de l'exemple du royaume du Wallon, essayé de reconstituer les étapes de la mise en dépendance de l'Afrique. et qui a été aussi exploité par le professeur Abdoulaye Abdoulaye qui, dans sa préface à la seconde édition de, son, de sa compagnie du Sénégal, a tiré les leçons effectivement de cette mise en dépendance, ce qu'il appelle la connexion des continents. Donc, euh, le royaume du Wallo est important pour l'intérêt que cette histoire à susciter comme exemple de euh, d'évolution du continent africain pendant plusieurs siècles. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous, professeur. Nous allons redonner la parole à notre cantatrice Lissoun Botch euh, pour faire la transition et donner la parole au professeur euh, Maïcham. ginnaaw barak la woon bi al maami demee ndeer barak la fa fekkul woon ba moomar fatim barso ngir ak loot ndar ma jaw xoor waroon ma kër rek loo ndar Musa Sarr Fari Diop nu yóbbu ko ndar ca kër ne ne maar si ñaare di ragal yàlla maa mi demee ndeer ginnaaw ba rek la woon jaala fay na ndeer ba ndam la dellu ne yàlla waali xuriyaay jàmbaar ja mbokk ndayam tegral xuriyaay ak xuriyaay waaye mbokk baayam ara mbakkar mi nu joxoon almaami abdul xaadar kan mbokk baay may sa daaro ma mbooj maalik ay sa daaro baayu ma mbooj maalik ay sa ginnaaw barak la woon jaalawaali fay na ndeer la deel baal maami demee ndeer gannaaw barak la woon jaalawaali fay na ndeer la deel amar fatim borso ndik mbooj fatim borso ñooñoo bokk ndey baay borso peniri ma may sa naaleew njaag ndiku mbooj fatim borso yaay gortunaar ma ndiku mbooj kotu samba ndiku mbooj yaay yaram joob kotu samba yaay ñaan joob yaay yamar yaram joob yamar yaram joob moo xore ngor ma damoo lakk saabu sire lii la demee xuma doxum samba wadd ngelambu koko moomoon fu sepp yem ci gànnaar ni waalo du ngeen jooy ku jooy ma rey jaaju ku ma mbooj bàyyi ma xaar gaala waali fay na ndeer ba fas ya dellu ndeer ba almaami dey meen ndeer gannaaw baraag la woon yàlla waali fay na ndeer ba ndam la dellu si ndeer amar fatim borsoog ndik mboj fatim borsoog amar fatim borsoog lanu jox faatu yamar xuriyaay moom ci ndata yàlla ak njëmbat njëmbatay bàyyi yàlli njëmbat mi njëloon xay faatu yamar yaasin am ci kumba faal yelleeg ndate yàlli njëmbat mbooj ndata yàlla faatim xuriyaay nu jox ko saa kura mbaar ka faal bee coba moom ca siit ndata yàlla bàyyi binta siidee kumba siidi si ndata yàlla mi ci géej saakura mbaar ka faal ma dem ba fara cura biram njeeme kumba njaay jaala waali fay na ndeer bandam la dellu ndeer ba almaami demee ndeer gannaaw barak la woon jaala waali fay na ndeer bandam la dellu gërëmati lisun bu ñu gërëmee lisun ba pare daf ñuy may ñu euh, laaj professeur Mbaye Thiam di la gërëm di la sant euh, ci taxawaay wi mais di laajte euh, jigéeni Nder ak xale yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñi nga xam ne ñëpp ñoo toog jàkkaarloog 2STV Talatay Nder lan la war a représenter ñun tey suñu taxawaay ak ni ñu war a doxalee professeur cest à bu ñu dellusee ci histoire waalo jaar ci bunt bi nekk talaatay ndeer daf ñuy dellusi rek histoire Sénégal xam nga boo gisee tableau bi ñu defar juróom fukki barab yi ak ñaar nga xam ne ñoo mas a donnante waalo ba tey boo gisee kim ci njëkk bind dangay wax ñii waalo la wax wala jorof la ñuy wax boo gisee ñu ne dañu daal di wax waa waa waalo du seen yoon ci ñun parce que foofu la départ donc te looy gëstu nag soo départ ci bopp ba rek soo jàppee ci gen bi du la jaaxal ba tax na histoire waalo histoire Sénégal Euh, mu histoire bu riche boo xam ne mën nañ cee jàngat yu bare bare bare bare bare waalo ñoo njëkk saxal diggalante ak tubaab bi mais du rek diggalante ak tubaab bi bi fi tubaab bi ñëwee di jàppi jàmm wala di coloniser waaw ah, bu gone yi xamee ne demoon nañ ba barak duwaat di joxalante ay lettres de correspondance diplomatique ak buuru Espagne buuru Portugal dinañ xam ne kon Sénégal jékkiwuñu ba am indépendance di am hymne kii di jàkkaarlante gi di yónnent ay délégation ñu jóge waalo dem Espagne à la cour du roi d'Espagne roi d'Espagne di bind lettre di yónnee waaw yooyu day rafet ci gone yi xam ko bi l'islam di ñëw ci réew mi jaar ci désert bi wàcc ba dugg ci réew mi waalo la jaar parce que le premier contact avec euh, la Mauritanie nga yéeg ba ngay àgg chez les Almoravides waalo la jaar donc dañu jot nekkoon waalo bunt la boo xam ne bii lu baree bare bari xew ci réew mi li muy jaar ak si law ba yàgg ci yeneen fa la jaar donc lu fa xew rek dafay nekk histoire du Sénégal gépp pour dellusi ci li nga xam ne moo ñu gën a ñor muy histoire u jigéen ñi ci biir histoire u jigéen ñi ñu tànn ci histoire u Nder dafay rafet aussi kii ñu xam ne dama ci waxtaan ak roqee léegi avant ñuy commencer ne Nder du lépp li xew Nder du lépp du lu ñu inventé dafa amoon lu xew di xewoon dañ koy jàngat na mu xewee ci contexte bi mu xewee bi mu xewee diggante kan ak kan la xewoon ak luñ te mën a jàngate bu ñu paree ci loolu nga xam ne mooy dimension historique bi ak ci dimension épopée bi nga xam ne Babacar lu toog kenn di ci dugg di ko ci jiitu maanaam lan ci mën lan lan ci mën a jàngat sur le plan philosophique jàngat ko ci loo xam ne lii dinañ ko ñaaxee ay nit ñu bokk ci réew mi ba nga xam ne ëllëg ak si ñu nekk ci réew mi walla ñu bañ a génn nekk feneen dina mën a nekk seen kiirlaay ci ban a ñàkk seen bopp cest à dem ba xamatoo sa bopp ngay wéy ngooy ñi ku la for yóbbu or li xewoon donc ci ndeer mooy bu barak jotee ak ñi mu ñi mu gën a dendal parce que nag ñi dëkk ñooy jote man ñi dañuy wax ne ña ceeg teen ba la seeni baag di jaxasoo waalo naar yi la gën a jege. soo jëmee ci kaw mook naar yi seen demalante ak dikkilante day neex ba mu yàgg mu naqari li ciy neex bokk na ci dañuy sëyante bokkante li ci métti moo di léeg ñu féewaloo jàmmaarloo bu jàmmaarloo ba dara xew ci 1820 ba am yi ci yu gaañu parce que naar yi dañ leen a jekku barak jóge fa dem ndar comme amoon na ay relation d'amitié ak tubaab yi di faju naar yi bett ko gannaaw bett ko gannaaw le 7 mars fekkuñu ko fa dëkk ba ay góor a nga fa woon aa ah, gaa mais ay jigéen a fa ëppoon jigéen ña fippu takku ngir sauver seen dignité ak seen honneur ndax li doon bañ moo di naar yi jàpp leen yóbbu leen def leen ay jaam ëllëg a ki si biir mu yàq seen taaru ak seen taari réew ñu dajaloo ci gannaaw ci leen yilifoon ne daal bu ñu mën a xeex ba naar yi jóge fi moo ñu gënal bu ñu mën a xeex ak ñoom ba ñu jekkuñu walla ñëw yóbbu ñu bokk ñun ñëpp dugg cib néeg taal ko naar bi xam ne mën nañoo ëpp doole ci kaw bett ñi mais du ñu ëpp ngor du ñu ëpp fit loolu nag bu amee ci mu réew day rafet ci boo xamee le sens du sacrifice dans les sociétés humaines du rek Afrique du réew moo dem ci àddina xeet woo dem askan woo dem dañuy jànkantoog yenn saa yi jafe-jafe yoo xam ne dafay am ñoo xam ne nag dañu sacrifié wu ngir ëllëg sacrifice boobu li tax muy am dayoo moo di fii ak ñi ngi koy fàttali. di ko fàttali ci baat ak façon bu nuy waxee bu rafet dina tax nit nekk tey bu ëllëgee buñ jànkoonteeg jafe-jafe bu mel ne woo booba woon ñoom ñi jéem a taxaw taxawaay bu ñenee ñi leen jiite taxaw woon ba tax na am na combat bu faatu di mëne boo xam ne war nañ cee bàyyi xel journée internationale de la femme ñun Sénégal moomuñu ko France moomu ko Amérique moomu war nañoo mën a déggoo ñun ñëpp àddina ci bés boo xam ne dañ koy delloo njukkal ki nga xam ne bu amutoon kenn du am muy jigéen mais ci biir loolu nag war nañu am journée nationale de la femme du Sénégal boo xam ne muy Ndeer muy Jàmme Njaay muy leneen muy leneen boo demee Kajoor dem fa foo mënti dem ci àddina ci Sénégal di nga fa fekk bés boo xam ne bés bu nu xam la bés bu am dat bés bu am ay nit yu ko séq yoo xam ne bu dajalee loolu yëpp dina tax bu ñu jëmatee ci journée internationale de la femme ñu def journée nationale de la femme au Sénégal jëmmal ñooñu wone leen ba nga xam ne ñi bokk Kajoor den xam fu ñu ñi bokk Jolof xam fu ñu jafandu ñi bokk Casamance xam fu ñu jafandu bu boobaa Aline Sitoé ma leen ak ñeneen ak ñeneen foo dem ci am na fa boo demee Jolof dañuy wax capitalu département wu Linguère Jolof mooy Linguère mais Linguère du dëkk titre la titre boo xam ne jigéen ji nga xam ne moo ko daan sol à côté du Bourba Jolof di ardo di njeggal di tuube di bummi di bërgël et di bëlëb dafa am titre boo xam ne jigéen a koy sol moo ko moom muy Linguère du dëkk nag yang-yang day génn dem fii tey Linguère nekk fi nga xam ne lu xew ci réew mi ñi ko séq buñ koy labat bëgg caa seet nu lan ci mën a àndee wala buñ ci mënta ànd ñi mën a ànd ñan lay doon foofa la ñuy dem donc Linguère googu soo demee dans l'histoire de France dafa mel ne les salons des grandes dames nga xam ne fa la ñuy bëgg dara di daje di nas di nocci ci ci kaw kóolute gi nu wóolu kii fi nekk muy jigéen am titre boo xam ne ëllëg si sibir ku teggi la nga waxoon ñu wax ku def lu méngoowoot ak li nga waxoon ne dinaa ko def ñu wax la ko tiiñan la ku jaar fa nga jaaroon ñu fésal ko ndax nga xam ne ñii doom c'est des gardiens de la parole donnée xam nga foofa wax waxeet dafay dal di tumuranke wax lii bu ëllëgee nga wax leneen dafay dal di tumuranke wax loo narut dafay dal di te garanti boobu nag soxna su ñuy wax la Linguère ci Jolof nga xam ne day bokk ak buur bu dee buur demee ba bëgg teggi li waroon a def bu ko góor ñi séq ak moom mënta wax ñu wooy lingeer mu ñëw jàkkaarloo moom ci pénc bi ne ko nangam moom mënoo koo def ndax nangam ak nangam ak nangam ak mu teggi bon yooyu nag dafay rafet ci réew mi ñu xam ko ci Jolof xam ko ci Kajoor xam ko ci Waalo xam ko ci Siin xam ko ci Saalum xam ko Casamance ba fépp fuy askan ci réew mi ba ëllëg ak si biir ñu di ko tëgg di ko wasaare ba nga xam ne bu ko nit ñi xamee dina tax ñu bokk ci yi tax ñuy jomb def lëf rus def lëf ragal def lëf parce que mënuñu koo def ndax cosaan ba ci jigéen ñi nag moo def parce que boo jógee waalo nag jaar fii ma wax yépp ba dans le temps moderne ay Sukeyna Konaare ay ñu mu téeti ma jigéen baasin ay ay ay foo dem ci Sénégal di nga ko fekk dans les temps de la pénétration coloniale ba ci di temps coloniaux ay jigéen ñoo xam ne ñii lépp lu góor daan def wala mu di ko wax ci lu rafet ba ñu koy def ñoom fekke nañ ko yëg nañ ko def ca loo xam ne lii nag ñoom dogg ko man ba ci bi ñu àggee ci la lutte pour l'indépendance ay soxna yoo xam ne cumbe sàmm ci PIA yi yi dañoo def ne ay ji góor rek ko séqoon ak jafe-jafe yi ci àndoon répression kii ba ci Masamba ci la bokkoon nekk ci seen biir lu ñuy def mu dugal ca loxoom te bari na nag lu góor Babacar dinañ ci dégg surtout daal di jéem ci réew mi mun a sax bu ko jigéen defee dugalee loxoom mu sax li nga xam ne mooy suñu cosaan suñu culture ñu di ko xam buñ ko xamee du tax ñu xeeb cosaanu jàmbur lu tax ñu bañ cosaanu jàmbur mais buñ taseeg jàmbur mu yore cosaanam naan lii mooy sama cosaan mm. ñu ne ko ñu nit lii mooy suñu cosaan ñu seet ñaari cosaan yi lu ci méngoo ci lu baax ñu xam ne ñoo ko bokk lu ci nuroowut ñu xam ne mënta nuroo parce que du ñu benn mm-hmm. ndax noonu la ko yàlla bind loolu mooy taxawaayam moom it yàlla na ko ci yàlla yàgg amiin amiin jërëjëf professeur Mbaye Thiam ah, waxtaan bi am na solo ni euh, ñu koy waxee ne jàng jàng parce que ñu ne dañuy jàng njàngale mi am na solo li nga wax jox ko kàddu gi sans mu jël ko moom la ñuy joxaat kàddu gi euh, Babacar may Ndaak dañu lay jox kàddu gi bu ñuy waxee ne épopée lan moo xewoon que s'est-il passé à à Nder lan nga duy tontu ak looy wax téléspectateurs yi ñuy seetaan tey damay sant ndax jataay bu mel nii jafe na jafe na ndax ki ko sooke wàllu la bu fees del Sénégal bu fees àddina ci xam-xamam ak taxawaayam doon jigéen nag jigéen moo dekkal histoire jigéen te ñi mu wootee jii ñoom rek la war a ndax Rokhaya Fall maa moom ñoo bokk daar yu ndaw ba université bañ demee université sunu professeur bi di Boubacar Bari jàngal nañu ni ñu Ablaye li jàngale ni ñu professeur Iba Der Thiam jàngale ni ñu Mbaye Guèye jàngale ak ñeneen ak ñeneen ndax fii war naa fee toog ndax ma tam leer dëkk xam nga Samba mooy sama baay mu fàttali Demba moo ko jur kooku Demba Thiam moo ko jur Demba Thiam Penda Maram Seck Ndioum Biram Amina Mbaye Yacine Lo Teenu Mbaco Mbacom Thiaw Xonko Mbawdo Xonko Mbawdo Saare Njaajaan Saare Njaajaan nag du ma tudd baayam ndeyam laa tudd ci laa bokk ndeyam Marème Ndoye Guèye moo ko jur Marème Ndoye Guèye Amar Guèye moo ko jur te ndeer la dëkk kon fii war naa fee war naa fi toog itam historien bi ma doon di gëstu ci mboorum réew mi ak mbatiitu réew mi mboor nag mooy histoire ci wolof mbatiit mooy culture ci wolof bis bi mu amee bis boobu nga xam ne Fati Amar Mbodj jëkkëram di Barak Amar Fati Mborso wute na jigéen ñi ñoo ko ñoo ko feelu jigéenu ndeer ñi woo ànd ak ñoom ñu taal seen bopp waxuma nag benn xale di ci xool di taal boppam xale tey nañu taale seen bopp neneen nañu taale seen bopp ci xam-xam bu ñu waree jàkkaarloog àdduna bu ñu waree tontu nañu tontoo xam-xam tontu boobu tontu boobu jafal la tontu boobu la ñuy jafale seen bopp damay wax ni on ko sànq mbay ak euh, daba nañu nettaliwaat histoire bi neneen nañu jàngale mborum Sénégal ci école yi neneen te ñu bañ xaar ay programme yu bees bu kenn xaar programme lii professeur bu ne war ngaa toog di ko fàttali say élèves ndax talaata ta jooju amoon ndeer am na yeneen talaata ci yeneen dëkk yi am ci réew mi yëpp amoon na talaatay Kajoor talaatay ah, Badibu talaatay Saalum talaatay Bawol fu ne jigéen def na fa lu mel nii te yëpp war nañ leen a sulli jàngal ko xale yi mu nekk seen ci seen cislaay nekk seen doole nga xam ne bu ñuy jàkkaarloog àddina dinañ ñu lii la ñu indi ku ni sa maam moo doon gendarme moo defoon nangam. nga indi leneen xale yi loolu moo leen manqué nañ leen jox ay jumtukaay waxuma ñu ñu sànnee de ñu ñu sànne xeer waaye ñu tontu àdduna ndax dafa jot te loolu histoire dong moo ko def histoire moo ko mën samp ci nit ñi ndax ñi nga xam ni ñoom la ñuy tudd tey Fatou Yamar Mbodj ak ñaari doom yooyu ñu génne ak mbooloo moom mu àndaloon ay naar lañ jàkkaarloon naar yi ñu tey ñoom lañ jàmmarloo woon waaye te jii am na nañu mbégte bi nga xam ni benn doom ja di jëmbat moo dem sëy ak naar ba Mohamed El Habib am moom doom bu ñuy woy eli jëmbat eli jëmbat sëy ak xëy faat gee njawar yaasin am moom doom bu ñuy wax ku faal eli te ku mu faal eli am na doom bu dox Touba Mbakke la am na doom ak buur siin Juuf la sant loolu mooy wane ni ñoom liñ doon defar xamoon nañ fu ñuy teg seen tànk loolu lañ bëgg xale yi xam se fu ñuy teg seen tànk moo xam ne réew mii ñu ko defar dañoo defaral ñëpp dañoo boole ñëpp ndax kii sëy fii sëy fii sëy defar na loo xam ne xamul lan la léegi nag bis boobu nga xam ne moom la amee talaata jooyu mbir la ndax talaata lañ xeex talaata moo doon bisu xeex ci suñu aada ñun. moo nekkoon bisu xeex moo doon bisu xare waaye nag euh, euh, limu bis ba lim ba juróom-ñaar yooyu le sept mooy baatin ba baatin boobu nag moo war a ubbi sax yu mars moo tax Mbaye Thiam wax na dëgg nañ def journée nationale de la femme mu nekk baatin bi. ñu soog a def le 8 mars mu nekk Sahir si loolu war a def ah léegi nag ah, yeneen jigéen ñi nekk ci réew mi am nañu ay soxna am nañu ay lingeer am nañu ay talent am nañu ay champion ñu ñëpp daan nañoo bàkk ndax réew mi réew mi ma doore Afrique ga ko jur waaye am na lu jural Afrique ci njàmbaar ci jàlloore ci xam-xam boo xalaatee xam-xamu xar baax da ngay xalaat Penda Sarr ca Ngawle da ngay xalaat Fatoumata Kane ca Kapol Fra ca Casamance Kapol nga ci ginnaaw Sédhiou boo xalaatee am njàngale da ngay xalaat maam Asta Mbàkke dund na téeméeri ak fanweer te da ngembo enfin takk ak takk sërëm di jàngal ay góor ak ay jigéen góor ñi mu jàngal ñopp jàngal nañu ay ndaanaan ci réew mi boo xoolee ci xam-xam rek xam-xam da dem ndënguur njaay da nga fu fekk li mag ñi nettali te xam naa yaatoogul boo demee ndënguur ceetu nguraan gi ma dëkk ak wetu Louga da nga fa dégg ñu naan la amoon na fi maam Yaasin Pooj moom Yacine Poñ moo daan tokkat ndaana nu jóg Kajoor ndaana nu jóg Kajoor dañ demal seet soxna si bu la tokkatee ba wóor ni ba ni man ba ni man nga c'est man nga tokkat mooy examen ci wolof tokkat mooy examiner quelqu'un loolu moo tax te bari nañ ci réew mi tudd na fi léegi mhm. Aline Sitoé Diatta mhm. talaatay Kabrous la talaatay talaatay inoor am na ak talaatay mayoor talaatay ripp am na xam professeur nañ gëstu kër professeur yi ni ñu nekk ci réew mii toogal fa réew mi nañu gëstu ci wàllu histoire jigéen ñi fa nekk ndax nag jigéen nag yàlla sunu boroom alxuraan bakk na ko sóoratu nisaay bàkk na ko sorotu mariama waaye góor bakk na jigéen ci réew mi góor gi ñuy wax alaaji gay daa woy jabaram faatu gay woy wu rëy xam nga lu mu ko wax lu mu ko wax góor montar la jigéen mooy orloosem orloose <laughs> kay du moo doomi montar te ku fi yàlla wàcc ci réew mi nga nekk nitu yàlla woy nga sa waajur wala jur u jigéen nga seet rek waajur yu jigéen yi ñu fi woy moo ëpp waajur góor yi ñu fi woy kon nga xam ni jigéen ah, ku ko sagal ku ko sagal yàlla defal la sag lu may wax ne souvent ku toroxal sa jabar dootoo tekki ku toroxal sa jabar dootoo tekki waaye ku teral sa ndey mm-hmm. da nga texe jërëjëf yàlla ko wax waxuma ko jërëjëf alhamdulilah merci beaucoup professeur jërëjëf dañuy jox kàddu gi à madame Rokhaya bàyyi ko mu tàmbali duñ la jox conducteur dañ la naan rek doxalal <laughs> man dama <laughs> uh-huh. kontaan naa maa ngi jaajëfal Fatou mm-hmm. ci jotaay bii mu ñu permettre ñu nekk fi jotaay bi ma bokk ak sama professeur Boubacar Bari nga xam ne maa ngi koy delloo njukkal Boubacar moo ma yore première année mhm, mhm, mhm. ba maîtrise may yore Boubacar moo dirigé sama thèse d'état yëkkatiwaatal micro bi tuuti rek waaw moo dirigé sama thèse d'état ah. donc man dongoom la bu may boo waruloon wax sax ma cay jël kàddu di wax waaye nag àddina jamono moo demee noonu plateau bi ñu bokk ko itamit ak samay càmmiñ muy mbay caam di Babacar mbay ndaag ma daan ko wax mbay guraan mm-hmm. ba ñuy jàng mm-hmm. te ba ñu jëlee kàddu avant man dama kontaan ndax wax nañu fi loo xam ne téere la du deñ yi ñuy wax nii ay jëf la prétexte bi mooy talaatay ndeer ci Fatou mi nga xam ne moom sociologue la waaye day ñëw ci suñu tool di ñu jàppale toolu historien yi <laughs> waaw. waaw non c'est une sociologue qui est très proche des historiens. engagée voilà. bi mooy talaatay ndeer mais comme li ma ko wax rek ku ni waalo da ngay wëlbatiku ni Sénégal ndax waalo mooy Sénégal daanaka donc jigéeni ndeer yi dañoo joxe exemple dañu jël talaatay ndeer li taxoon balaa ñu laataa ñu taal seen bopp dañu am ñu ñu rawale pour ñu mën a nettali jëf ci nettali ko mu nekk royukaay ci génération yi ñëw donc dañu war di fàttaliku talaatay ndeer ni mbay waxee duñ ko feete mais dañ koy fàttaliku ndax dañ koy fàttaliku pour muy ñaax xale yi ñaax société bi ñu xam ne jigéen ñi jàmmaarloon nañu pour défendre seen réew jàmmaarloon nañu te wane nañ fa jom wone nañ fa njàmbaarte waaye itamit du comme ni ma waxee rek waalo mooy Sénégal laata talaataay ndeer am ci diwaanu Sénégal yi buñ ko gëstoo wax dëgg yàlla dinañ ci gis jigéen mosul des gannaaw fenn ci ci ci diwaanu Sénégal gi jigéen mocu fee des gannaaw boo demee Kajoor damay njëkkee rek ci xëy na ci après mais damay njëkkee ci ku ñuy wax ngoone Latyr ngoone Latyr bokke bokkul ak Ngoné Latyr bi jur Lat Joor mi ngoone Latyr bi may wax Lat Sukaabe Ngoné Jeey moo ko jur Ngoné Latyr boobu ci début dix-huitième siècle la lan moo tax histoire Bawol retenir jàpp turu Ngoné Latyr parce que Ngoné Latyr mooy jigéen ji nga xam ne moo jëkk jiite armée jàmmarloo ak naar yi la aussi ndax naar yi dañuy ñëw di jubal si Bawol fekk Lat yaramam sutante ñu ne kan mooy jiite armée bi bi ñu toogee di dayonte ci néeg yi mi ngoone laati dafa ne leen man mën naa ko jiite ñu ne ah waaw lii nu mën a demee lii nu mën demee am na woy wuñ ci neex wuñ ci woy malheureusement man sama baat neexul te mun ko woy ngoone latir ñu takk ngoone latir moo jiite armée boobu donc la femme jigéen ñi nekk ci armée bi fi mu ne nii ñu defee ne lu bees la non du lu bees lu yàgg la lu yàgg la Ngoné Latyr a ah, été général d'armée si je peux m'exprimer ndax moo jiite armée Bawol bi di jàmmarloog naar yi kooku début dix-huitième siècle la mu ñëw au secours de son père empêché ñu ne toujours ci Kajoor ku ñuy wax Yaasin boobu yéen ñëpp dégg ngeen ko waaye Yacine boobu ni ñu ko nettalee dañu ko nettali pour ñaax peut jigéen ñi waaye dafa am luñ ci làq li ci nettali bi làq mooy Yacine Boubou dafa jàppale jëkkëram Yacine Boubou aawo la woon d'abord moo doon aawo Maajoor bi Maajoor amule nguur gi Yacine Boubou moo ko jàppale ne ko nañu génn Kajoor génn Kajoor def lan moo ko xelal dem ci réew yi wër Kajoor waalo Jolof Saalum Siin fépp Maajoor dem na fa ànd ak awam boobu te fu mu ca dem Yacine Boubou ne ko dangay jël fi soxna fa jëlee soxna njaboot gam fa am moo tax finalement dañoo sakkanoon seen suite bi ba ñu tuddee leen Kër maajoor ci la ko loolu commencé ñu naan Faal Kër Madior voilà léegi Yaasin boobu wëlbatiku ci maamani di seet nu ñuy def ba mën a ñëw Kajoor Maajoor falu fa ndax moom mu yooyu la woon ci meeni mu ndax nag li li ñu waroon a jiital mooy ci suñu societé ci wolof yi men dafa fort trop trop trop mm-hmm. léegi sax xëy na la euh, kii euh, juddu gaño dugg gaño am na fa doole c'est waaye meen moo fa gën a fort euh, nu ma tudd dëcc mu yooyu la woon Amari Ngoone Sobel doomam bi xeex indépendance bi ñuy wax nekk wëgatu waaye doomu Amari Ngoone Sobel ndax tàkko yuga la séyloon doomu yi ay muyoy la ñu woon ñu dem ba jamono dix-septième siècle muyoy yi jotatuñ ci nguur gi maajoor nag muyoy la sëy ak cousinam bi Yaasin boobu mu nekk muyoy Yaasin boobu nekk daanaka njiitu famille muyoy bi parce que jigéen ñi ñoo yoroon maanaam lépp luy alalu meen bi Yacine di ko fructifier bi mu demee ñu wër wër maanaam Sénégal bi si boo <laughs> ma mënee wax noonu ba dellu si dem ca maaman bi mu digal leen saafara soosu moom la épopée bi jël ne daf ko euh, dafa dafa wax euh, maajoor ne ko da ngay dem ci sa jabar yi nga wax leen ku ci nangu nga sangoo deretam bu ko defee sa doom falu demewul noonu demewul noonu maanaam saafara soosu la sange maajoor daanaka ba maajoor mën a falu ci kajoor dañ leen woo si d'ailleurs pour mu ñëw falu ba mu faloo mu def ko aawoom ndax nag jigéen ñi ñetti cër lañu amoon ci ci ci espace euh, wolof lingeer aawo ak jee mm-hmm. yaasin nekk na aawo maajoor waaye itamit Yacine nekk nekk na lingeeri doomam biram te biram bi muy falu dafa fekk Madior saay na donc xam nga Yacine dund na après Madior mm. noonu lañ koy mën a euh, expliquer voilà nekk na donc aw Madior nekk lingeeri doomam biram li indi nag ñu retenir turam dëgg-dëgg non seulement moo permettre jëkkër ji mu accéder au pouvoir mais bi mu nekkee lingeeri doom ji ba doom ji saayee doomu sëram ngal ngalgu ku ñuy wax déccee déccee maram moo toog ci jal bi jël nag maram ngal ngalgu sëru yaasin def ko lingeer ci la yaasin entré en dissidence entré en nag fekk réew mu yëngatu lool muy loolu nga xam ne sama musée bi jàngal na ko la guerre des marabouts période boobu la très bien période boobu la Yacine pour montrer que jigéen ñi. Uh-huh. ay stratège lañu. lañu woon elles étaient au cœur des stratégies politiques. Uh-huh. d'alliance oui dafa dem allié wu ak parti marabu bi nekk ci réew mi. Uh-huh. nga xam ne ku ñuy wax Ndiaye Sall moo ko dirigé woon. ñu ne dafa sëy ak Ndiaye Sall wala ñii ne daf ko may doomam Anta. ce qui fait que. force yi mu am nga xam ne néegum muyee ñoo ko ngemb ak néegu maajoor kër maajoor ñoo ko ngemb ñu booleeg euh, dooley parti sëriñ bi ñu fexe ba Déthié Maram nekkatul damel donc noonu la fi parti marab bi sampoo mais ba ñu parti marab bi sampoo aussi Yacine gis ne ñii kat samay wax dëgg yàlla samay bàqu yi ñu ko fi bëgg a jëlee ndax nee nañu sangara si kenn du ko laal. waaw nii ne nii ngeen di. ñu bëgg a tere ceeb yi mu dem wëlbatiku dem Saalum la dem. Saalum la dem dem woote wooyi. doomu majoor bu fa nekkoon muy ma ma ma xureeja joojo kooku maajoor a ko jur. mu xureeja joojo ñëw ànd ak muyo yi ñu daldi di ngemb dóor. parti maraboutique bi noonu la parti maraboutique bi ñàkkee pouvoir bi ma xuree ja jooju falu fa nekk gelwaar loolu moo dugal gelwaar yi ci famille garmi yi nekk Kajoor te loolu jigéen a ko def jigéen a def loolu professeur waxtu biñ cëraloon jeex na <laughs> mais dañuy àggali euh, Babacar suñu réalisateur ak euh, suñu Euh, techniciens yi nga xam ne ce sont les hommes de l'ombre sans ñoom ñun li ñuy def nii du ngeen ko mën a gis dañ leen di ñaan rek ñu may ñu quelques simili waaw ñu ñu jeexal parce que wante li ñuy wax ne mënuñu jeexal dañuy tàmbali bàyyi ndax histoire la boo xam ne professeur Mbaye Thiam nee na faw ñu fàttali ko mm-hmm. di fàttali te laa ndeer dafa nekk lu baax mais leneen li ma jàpp ñu ne amoon na ay soxna ay lingeer ay talent ak ban encore ak ay champion professeur yow mi nga xam ne yaa sooke li yëpp loolu laay joxaat ci li ñu dégg yëpp avant ñuy jox professeur Boubacar Bari ñu jeexal def ah. benn tour de table taxawaayu jigéen ci Sénégal yàgg nañu gis ni nu ni ñuy taxawee tey est-ce que waroon na noo toll foo xam ne dañuy ne dañuy xeex droit yu jigéen ñi ndax ñu am lii walla ñu am lële seen baat ñu mën ko dégg ñu mën leen gis fépp ñu mën a taxaw euh, am li nga xam ne mooy kàddu bi ak baat bi ñu war a am ndax yëf yi mën a jëm kanam. waaw jërëjëf naan mm-hmm. loolu moo tax toujours damay wax ni si sama gëstu waalo euh, Nder déclic la woon mais dama dellu di seet depuis les origines maa ngi wax professeur Boubacar Bari ni ko maa ngi seet barak bu nekk kan la kan moo ko lingeeru woon te képp lingeer bu si nekk am na lu ñu jàngat ci moom. Euh, li ma jàngat si ñoom moo di ñoom naka la ñuy def ba mujj jël nguur gi parce que ndaxte yàlla ak njëmbat kenn falu leen barak mais kenn xamu fi kan moo doon barak ba ñëpp ndaxte ak njëmbat lañ jàpp ma mbuj mbaalik ñu bari xamuñu ko euh, moo tax man leen li ma jàngat si ñoom stratégie revendication des droit ak stratégie conquête du pouvoir du benn fi mu nekk ñun Sénégal indépendance ba tey revendication des droits lañ nekk or conquête du pouvoir bokkuñu ni ñuy jëfandikoo loolu moo tax jigéen ñi comme ñoom ci revendication de droit la ñuy yem bu ko defee góor ñi bu leen neexee may leen lii bu ëllëgee ñu nangu ko te d'ailleurs sax euh, maa ngi bind benn article boo xam ni damay wax ce qui est en train de se passer il y a comme une tentative aujourd'hui de liquidation des acquis du mouvement social des femmes kon loolu moo tax tey ñu war a mën a delluwaat par tey li fi euh, roxee wax Euh, ñu bëggoon ñu wax ko ci ñëpp parce que dama ne histoire du Sénégal boo ko seetee d'un fil d'un bout à ay jigéen a ko yor parce que Sénégal bu présent bi euh, la conquête coloniale jigéen a ko ubbi muy ndate yàlla 1855 mais Aline Sitoé Diatta c'est la dernière personne bi ñu déporté politiquement kon euh, bu ñu ko seetee spatialement ak temporellement yëpp jigéen nga ci fekk naka lañ def ba jigéen ñu góor ñi xëy suba bedd ñu loolu colonisation bi moo ko fi dugal parce que nee naa leen man li tax euh, pour man France sama culture a gën seen bos ndax ñoom dañu bi ñuy jàmmaarloo Sénégal jigéen lañ jëkk jàmmaarlool gañu ko parce que simplement du jigéen mais parce que dañ ko ëpp armée ni ñu gañee ñeneen ñëpp ëpp ko ay munitions mais ñoom dañ euh, toog nañ xaar juróom-ñeent fukki at ba jigéen di fa am droit de vote kon kay man wutu droit wu France boobu intéressé wu ma or léegi ñun li ñu fi bindal si loolu la renvoyé parce que la France loi wu code Bonaparte boobu tax na jigéen amul woon presque benn cër foofu ci seen dëkk ñu continuer di war di ci xeex moo tax dañu war changer paradigme waratuñu topp moo tax même le mouvement international le 8 mars revendication de droit lay nekk li tax may indi man 7 mars bokkuñu yoon. bokkuñu yoon bokkuñu yoon te ñun si bu ñu euh, sukkandikoo ci li fi Yacine boobu def sukkandiku ci li fi. Euh, Alioune Seye tey def sukkandiku li Fanta Canal de Bal di def Fanta Canal de Bal tamit waa Fulaadu am nañ benn femme boo xam ne jusqu'en 1905 était moo gouverner une province du Fulaadu cousinu Alpha Moussa Molo la woon mais nit ñi Alpha Moussa Molo rek lañ xam xamuñu histoire ndaw soosu bind nañ ko aussi di ko waaj def moom itam bande dessinée ni ñu bëgg a defee bande dessinée histoire du jigéen ñi xam ñi ñuy xam yëpp léegi ñun li ñuy intéressé ci histoire bi moo naka la ñuy affronter l' avenir Euh, man jàngat bi ma ci am tey ci li tax may def lii yëpp moo di naka la ñuy changer lu cours du mouvement social des femmes parce que li ñu fi doon def 1960 ba tey gaw ma ni yóbbu nañu fenn parce que boobu ba léegi terewul gouvernement bi góor ñi ñoo ko yor euh, xool leen tey dëkk bi ni mu ni mu yëngatoo euh, jigéen ñi dañu war a jóg taxaw ni góor ñi dafa doy nii ngeen fas yéene yore suñu réew ànduñu si ak yéen mais tant que ñu ngi topp si góor ñi tant que moddu parti politique yi ñoo fi am jigéen bu nekk topp ci li sa li sa leader wax loolu ngay bu la ko waxul nga ni pat dem toog ci gannaaw kon dafa jot léegi moo tax historiens yi ñu soxla leen nee nga bon moi je suis d'abord anthropologue en réalité même si à l'université poste sociologue moo fa amoon mais ma thèse c'est l'anthropologie et la sociologie politique c'est sur les questions de pouvoir que j'ai toujours travaillé or l'anthropologie travaille sur la culture loolu moo tax ce point de jonction di di mën a am mais peu importe aujourd'hui on est obligé d'être pluridisciplinaire parce que pour comprendre suñu société foog nga dem jàngali sa moroom yi bind euh, mais c'est pas un hasard li tax ma jël fii indi fi ay sos ay historien kese parce que si ñoom tey li ma fi li ñu fi wax tey keneen mënu ko fi woon wax li fi Mbaye Thiam wax tey keneen professeur Mbaye Thiam wax keneen mënu ko woon wax sëñ Babacar Ndaak li mu fi wax Roqaya bon euh, bari moom jëlal jëlale nañ ko kon ñun li ñu bëgg tey moo di euh, soññ nit ñi Euh, parce que bu ñuy wax soññ soññ leen li mu wax ndeer n'est pas une célébration bu si nekk ma wax leen ko c'est une commémoration donc dañu war a seet fu ñuy tibbee jom waaye le passé pour le passé du loolu mooy suñu suñu maam yi defoon def nañ la ñu war def ak jamono ba ñu tolloon mais bu ñu fekkee dañu war a euh, ëllëgu Sénégal war ko tabax war nañu tant amuñu jumtukaay yu ñu moomal suñu bopp bu fekkee rek ci histoire jàmbur yi la ñuy la ñuy topp daañu continuer di sonn loolu moo tax université Cheikh Anta Diop bi fa recteur bu nekkee euh, euh, Sall ma koy gërëm parce que daf ma jàppale bi ñu defee laboratoire bi mu xëy na ma dañuy indi ay nit pour ñu jàngale fii ay affaire genre ma ni ko bis boo ko defee ma dal sa kaw parce que dañu war jàng d'abord suñu culture produire des connaissances sur la réalité sénégalaise ñuy doog a mën di jàngale luy question wu genre moo tax tey problème am na Sénégal bu ñu xëyee ministre de de de xaw ma lan du transport bi ne ni carte d'identité mooy sexe il raconte des histoires du dëkk du loolu parce que dañu war a sukkandiku ci xam-xam yi université di génn pour jéem a xool naka la ñuy tabaxee seen ay politique publique gis naa ministère la santé temps yi moom tam dem ni ma ngay jël ji ay espagnol mu nga xam dañuy def femme homme ak autre genre xam nga tant que comprendre ñu seen bopp xam nga loolu yëpp ñoo ngi indi ñu ngi nongo y a une de liquider tu le travail bi jigéen ñi defoon lutte bi femmes yi defoon te loolu ñoom Euh, li ko indi yëpp mooy xamuloo secteur ba nga xam ne nga fay liggéey kon ñun li ñuy def collaboration Nder bi mm-hmm. c'est un prétexte mais au-delà de Nder aujourd'hui naka la jigéen ñi war a mën taxaw mm-hmm. ba bay seen ta seen xar seen tànku tubéy ak seen lafa seen sër ba Sénégal bi ñu bëgg ñu mun ko am parce que bu ñu ko bàyyee kese góor ñi nii ñu koy doxale daañu sënkër bi suñu réew mi parce que gisoon nañ li Fatim Yamar Xor yaay defoon li Yacine Boubou defoon li ñeneen ak ñeneen defoon li Aline Sitoé defoon woy bàyyi nañ fi way boo xam ni mën nañ ci sukkandiku mais ana wayu góor ñi parce que li may gis aussi ma ni Sénégal euh, Lat Dior est un héros incontestablement il a il s'est battu pour un temps assez long contre les tubaab mais ki njëkk résistant <laughs> résistante bi c'est Ndate Yàlla je leur dis c'est l'héroïne au-dessus de tous les héros su ma ko waxee doomu Lat Dior bi sët Lat Dior bi ñëw ne ma lu tax ngay wax loolu man na ko yow Lat Joor ak Ndate Yàlla est-ce que xam nga ñaata at lañ magante man na ko doomam mooy moroomu mooy moroomu Lat Joor Sidiya Ndate Yàlla kon ki nga xam lu tax jigéen jëkk def loolu ba pare ñu bëgg ko nasaxal ci Sénégal te kenn du ko tudd parce que c'est les hommes qui écrivent l'histoire c'est les hommes comme Babacar c'est les hommes comme <laughs> lui c'est les bon mais mais non dama koy damay tooñ parce que su Boubacar Bari bindul woon histoire waalo su Aline Badara Beye bindul woon Talaatay Nder ñun tey duñ ci jote noonu les mouvements de lutte des femmes au Sénégal c'est vous qui pourrez permettre à ces femmes-là d'avoir les armes qui leur permettront de faire face à leur destin au destin du Sénégal donc plus que jamais on a besoin des historiens dans le combat que nous sommes en train de mener parce que nous ne pouvons pas le faire c'est parce que xam-xam sans connaissance tu ne transformeras di fi toog naan damay xeex droit de femmes droit des femmes te xamuloo fan ngoo ko teg mm-hmm. xamuloo fooy teg sa tànk dara la la dul jëriñ mm-hmm. moo tax pendant 60 ans ñi ngi fi ba tey du tool nekk ci gannaaw góor ñi rek te ñun loolu lañ wax ni dafa jot ñu jóge jële ko fi jërëjëf nee naa merci beaucoup am naa ne Babacar di nga ñu dóor wante dañu lay gërëm di la sant gërëm di sant équipe bi yëpp mais mënuñoo jeexal sans ku nekk au moins ñu jox la 30 secondes ne la jërëjëf <laughs> professeur bay Thiam Babacar bay Ndaak euh, Omar Rokhaya Fall ak professeur Bari ku nekk rek en quelques secondes ñu tàggatoo. Sénégal lu fu nit di wut démb ba tey bu la ko doole ak pexe ak kii di mayit dinañ la ne nan ko wutal fu mu wéeruwaay bokk na ci ay ñaan. bokk na ci ak yeneen loolu ci kër ndey rek lañ koy defee kenn du ko def ci sa kër bay hmm. kenn du ànd ak sa kër bay di wuti téere wala ngay wuti ak ñaan kër ndey gi nañu hmm. ci ku xam ko hmm. mën nañ xam di làmbut yooyu yëpp boo ko jàngatee ak yeneen ak yeneen ak yeneen mënoon koo taw yi ba mu sori demoon nañ ci réew mi roqee mi xam na Babacar mi xam na ba buur di takk ci kër ndeyam di takk gisuñu luñ ko may ban di ko may sëram wala tantaam ndax ndax foofu la secret xaj yooyu yëpp nag buñ ko xamee dina dinañ war a xam ne xeexi tubaab yi wax lutte de la femme revendication ñun bokkuñu ci donc donc suñu xamee li ñu am ak luy cëru jigéen ci suñu société jàngal ko nit ñi yar leen ci mais dootuñu dinañ dépasser rapidement li ñu bëgg a def un combat dans quelque société que ce soit des hommes contre les femmes ou des femmes contre les hommes. dama koy dolli ma ni xeet. day xeex askan kër bu njëkk bu bu kër yi masaan lëj bu kër yi masaan bëgg faju falu néegu ndey yi ñoo leen di fal néegu ndey yi ñooy fal kër yi lëj boo kër yi bari ay problème léegi nag ñooñu nekkoon ndeer Fatia Mara ñu góor yooyu moo àndaloon li leen toggoon moom a ñor seen aada seen mbatiit seen culture moo leen toggoon moo tax moom la ñu gàll loolu la ñu war a fexe ba jàngal ko xale yi entre la mémoire et l'histoire foofu la nit di galle li mu nàmp. ma roqay Fatou cinq secondes ci importance su taarix. Mhm. histoire parce que boo xamul sa histoire doo xam fi nga jëm. boo xamul sa histoire doo xam fi nga jëm doo xam fi nga jëm loolu daal moo tax rek ah, may gën a ñaax ah, xale yi jeunes yi pour ñu farataal gëstu ci suñu histoire. jërëjëf voilà merci beaucoup professeur. dois-je remercier Fatou Sow de m'avoir donné depuis la reine d'Ateyalla en mariage <laughs> et la remercier surtout de m'avoir fait comprendre l'importance de Talatenber dans l'histoire du Sénégal, dans l'histoire des, des, femmes et le rôle qu'elles ont joué. Parce que j'avoue que dans mon royaume du Wallo, j'avais consacré quelques lignes seulement mm -hmm. à Talatender. Mais c'est dû aussi au fait que même la tradition orale, avec Yero Diaw, euh, qui est le, le, le porte-parole de l'histoire du, du, Wallo, mm -hmm. ou à, à, à, Amadou Wad, mm -hmm. euh, ils n'ont pas beaucoup insisté sur ce. C'est grâce à Fatou que j'ai pris conscience de l'importance de, de, de l'histoire de ces femmes. Et, et il faut dire qu'il y a une Allemande qui a fait un mémoire sur Natayala et John Bott, mm -hmm. et qui euh, mérite d'être publié et qui montre machin que euh, aussi, je dois dire qu'il faudrait que les, les, hommes aussi prennent en charge mm. l'histoire des femmes Parfait. pour qu'on puisse effectivement leur donner tous leurs droits. Merci beaucoup. merci professeur Boubacar Bari euh, gërëm sant professeur Fatou Sarr professeur Mbaye Thiam euh, vraiment encore une fois euh, li ñuy wax xam-xam génn na dañu réitéré waat rek ne buñ ko mënee di def de temps en temps dana nekk lu baax ndax soxla nañu ko remercier équipe technique bi yëpp bu ñuy jeexal nag dinañu bàyyi li sut Mbodj moom mooy tëj li nga xam ne mooy jotaay bi remercier Babacar Mbaye Ndaak remercier maman Rokhaya Fall euh, remercier leen yéen ñi toog jël seen temps jàkkaarloog seen télévision 2STV seetaan émission bi ba mu jeex ñu ngi leen di wax jërëjëf di leen jox dig daje beneen yoon incha allah ci yeneen jotaay yoo xam ne daf ñuy indi aada ak cosaan ci li nga xam ne moom la jigéen ñi def ci réewu Sénégal merci encore une fois de nous avoir suivis on donne rendez-vous très très vite à très bientôt Au revoir, merci. Nous terminons avec Lissoun Bodj qui est cantatrice et qui va nous dire au revoir avec ces, euh, euh, belles chansons. Merci, au revoir et à très bientôt. yirim mbañi ngak naata goog njaaram ku ci nekk dugg noob ñetti doomi aram bakkar yi tegoo daan jël ku nekk tegoo daan jël abal sa moroom ñooñoo xare ndóob dàq demel ren di teen xaasu ndomb tërëwaaloo nelaw bi almaami demee ndeer ginnaaw barak la woon jaalawaali fay na ndeer ba ndam la del waaw ba almaami demee ndeer gannaaw barak la woon jaalawaali fay na ndeer ba ndam la del balla maram nu mbey joob yee balla maram nu mbey joob balla maram nu mbey joob fatma biraama isa bey degen fara degen fara kondaama tey lay jooy ndata yàlla faatim xur yaay ma nga jaara fay na ndeer ba ndam la del ndete yàlla fatim xuriyaay ak yëmbat fatim xuriyaay ak faati xuriyaay ndete yàlla fatim xuriyaay moom la nu jox sa kurambar ka faal bee joba moom ca siidi yee ndete yàlla fatim xuriyaay xuriyaay gireja gàkku njaag maamay sa naar mi demee ndeer gannaaw barak la woon jalo waali fay ndeer ba ndam la dellusi ndeer ndate yàlla fatim xuriyaay lanu jox saakura mbaar ka faal bee coba xuriyaay yaayam anta joob ngira ja ngàkku njaak ngàkku pend yiri maamay sa naaleew njaak saakura mbaar ka faal raya nga ci fara nga góoram mali xurimi ci beqaar yaat ma demba ngi dee dimar nit farin du mbeek nit fanta yaat ma nit mi somme woon ak buur yi jobaas biyal maami demee ndeer ginnaaw barak la woon jaala waali fay na bandam la sakura mbarka faal bee joba nette yàlla fatim xuriyaay ee eh, waalo waalo xamul caaxaan na neer bandam ni del ay sa daaro yaay maram njaay ay sa daaro yaay kulimba ba maram njaay yayi samba ñebbe kuli chef supérieur la manto ma ko tenji kuli mbabba maram njaay ay sa daaro ay sa daaro mbokk baayam fatiyam al xuriyaay mbokk baayam aram bakkar mbooj mi nu joxoon almaami abdul xaadir kan wala yàgg na ci njàmbaar barka be mbooj njaay mortal neeg ba keroog ndeer nu bàyyi fa saydaane ma faatim yóbbu ko gànnaar mam ba xuddi saydaane get saydaane ak sayr saydaane saydaane ma faatima wa njaay alasaan jigéen teg ndey baaba jaw mu dul samba caakam njool mi tere woon gaal yi dem ngalam bi almaami demee ndeer ginnaaw ba rek la woon jaala waali fay na ndeer ba dam la dellu ndeer way waalo way waalo way waalo i ngeer waalo doon